Assalamu takku tembe taxaw seetlu. Sénégal TV de nous encore une fois mbégte à contenter dans leen seen émission taxaw seetlu tey nag dañu am en exclusivité la présentatrice phare de l'émission Nekki dañu indi tey en tant que chroniqueur Mbène nuyu naa la. fay naa la monsieur Tidiane man sama parrain laa koy woowee quoi. Mhm. moom sama parrain la. Ah, loolu moom dëgg la moom yaay sama fii. ah amati mbég tey ak contentement. Mhm. teew ci plateau bi nag. Mhm.

ñoom <laughs> ñuy fonctionner parce que am naa chance bu tuwaale ak yéen taalibe yi mm-hmm. am loo xam ne addiya la mm-hmm. soxna si dafa yor kuréel ba nga xamante tey jii nii mm-hmm. taalibe yi moom lañ koy moom lay jox addiya yi ah, moom lay jox addiya yi addiya boobu nag lay récupéré tey jii du ko jox sëñ bi pour gars yi préparé jënd ay nag jënd loo xam ne pour préparé màggal suñu tubaabu mag bi ñëpp Sénégal di waajal conseil social bi di ay bëgg-bëgg la liggéeyoo bëgg ba fee dem lu bëgg par exemple bay ramoo ma diw diw diw diw ñun war a jàpp ñu ne xaas di lekk suñu xaalis dañu fowe te kenn jàpp ne dina leen dara nan la jënd loolu avant ñu lijjanti lii ok c'est élémentaire voilà donc nen yow nag ban lecture nga am par rapport à la situation ba nga déggee coono man dama dus tout d'abord parce que of nag bi nguur gi bees bi ci mais ñi politique la ndax dañ ne dañuy yoonal mais ni ñu ko defee moo moo xaw a mm-hmm. parce que dañu sélectionné mm-hmm. yaa ngi dégg bu fekkoon dañ ko jaara si yoon lu métti mais ñun xam nañ ne politique noonu lay demee mm-hmm. heureusement ba sénégalais yi ci bari lu ma ne ñëpp comprendre nañ loolu déjà a foofu la njëkk a parce que ñëw nga nga gën a bëgg a gëmloo sénégalais ne changement que tel n'est pas le cas yaa ngi dégg nit ñi bàyyi ñu seet parce que wax nañ ça n'a rien servi nga ñëw un bon jour sànq dafa wax sànq point bu am solo mooy mbës man loolu laa gëm. parce que depuis loolu kenn déggu leen. kenn déggu leen. voilà mais mhm. mais fi ñu génn nga bàyyi ma ma ma dem fi ñu génn ci boppam dafa noonu. parce que sànq lu mu wax. Mhm. loolu noonu la demee ah. Mhm. ay daayira la yu dajale jox ko. yaa ngi dégg. xam nga ñoom daayira la. man personnellement su ma amee sama borom kër ma toog ay milliards bu amee événement léegi man lu ma bëgg a comprendre mooy. ndax may dafa tout te ñoom ñu war te ñoom of naag loolu tax leen fay toog xam nga lan moo leen fi tax a toog ñu liggéey bi nga xamante ne alalu réew mi dañ ko yor di ko pasar pasar teguñ ko ci yoon lañu ci loolu xam hum, hum, hum, voilà donc euh, mu amee aussi y a une information bi nga xamante ne ko aussi jox nañ ko dégg cellule de communication euh, daayira bi euh, jot nañu quand même prononcé sur la situation ñoom aussi effectivement ñu leen wax loolu la ñu wax ah nee nañu la dame était chargée de de collecter les fonds si il y a mun a ñëw verser euh, juste pour ñu préparer ma bi aussi quoi. voilà donc loolu mais aujourd'hui euh, a ngi dingat euh, mm-hmm. dama ko xam de. ngeen wax quoi. Ça compte la réalité. ñoom ñu bëgg affaire mm-hmm. voilà donc vous êtes pas d'accord. man personnellement d' accord ma parce que man Ousmane ni nga ko définir. ak man bu ma gisee mu taxaw. man d' accord ma si parce que c' est diamétralement opposé. Mm-hmm. dama ne. Mm-hmm. li ñu war a lijjanti. Mm-hmm. bari na ci dëkk bi ñoom dañ doon faire semblant. que dañuy teg lépp ci yoon. xoolal comme dañ doon faire semblant nañ ko dëggal. fañ commencé wu. mais dañuy auditer nit ñi. nañ dem ci point de départ. xam nga bu fekkoon loolu ñu ngi ci. est sax bu ñëwee ba bëgg a diingat loolu ñu joxe si addiya sax. di nga ne def nañ faay mais lañ nekkoon ñu nga ci ñoom dañ ne bëri ñëpp ne ah ñoom de ñu ngi leen jubal dinañ jubal dina fàtte taxaw

dañ ko tegu si yoon dañu sélectionné. Mhm. ñi bokk si ñoom. Mhm. affaire bi du mu select. Mhm. ñi leen neexul ñoom lañu sélectionné li moo fi ne. voilà mais pourtant Samb yow wax nga fi wax bu am solo je sais pas ndax bàyyi nga ci xel. Euh, nee nga cité nga fi ay nit ah Cheikh Kanté euh, Siré Siré Dia. kooku nga wax noonu. waaw ak kan. Euh, DG Coutu. DG Coutu voilà donc mais yooyu c'est des rapports yi nga xamante ne que OFNAC aussi moo ko publié.

pour nga jëlee alalu mbooloo ñu denc la ko nga di ko fooye ba gars yi gis ne lii yaa ngi ko jël di ko fooye mm-hmm. soo nekkee gox dëgg dëgg war nga ko ñu ko dem xool leneen mm-hmm. xamal na yow nii yaa bi mm-hmm. yoon ak gis nga af naa ci boppam waroon na mën a am ku dafa ñëw souligné ñu ne ko ak ah, ñun bu gën a rëy bu ma gën a naqare loolu la ñu koy liggéey am si nag fayal c'est une battante cette femme là. Mm. soo bëggee dégg dégg une vraie une vraie une vraie patriote mooy kooku. fexe na fexe na ba ñu jëm ba épingle leen. la mm. continuer de chose lu tax lu tax a jur laaw de chose boobu. service commandé la. <laughs> service du moo da nga daan tak tak tak defal lii defal léegi lii mm. mais à la fin de l'année bëgg buzz alors voilà Cheikh Béthio nangam nangam. ñu bëgg ko épinglé am na leen ñu gën a tàng ci dëkk bi.

condition boobu la condition samp ko dugal yow dugal ma mais dëgg laa samp ko dugal sa dugal ñu tànn bu ma dugal sa joxoon ngir français laa doon jàng voilà léegi non non loolu condition boobu mu ngi fi ak ban ah mais bari na tey jii tey tey jii soo xoolee tey jii ah si les hmm. marchés publics yoo xam nga ba xam ni dem daal gën a xam roxi bi roxi la dama la jox marché ko tuwal sama ceeb ma am sama fond politique mën a sama adversaire non non ñu dundee loolu du tijaan kese ci dëgg nan nan wax dëgg waaw luñ toogee dañoo bëgg dëgg bi teg ci yoon tout à fait dañ ci am wàllu quoi tout à fait tout à fait voilà donc euh, chers internautes vous qui nous prenez en courant c'est-à-dire euh, thème bi tey jii am na solo lool c'est-à-dire on parle Euh, des 270 millions yi nga xamante ne que dañ ko joxee addiya talibé Cheikh Béthio yi euh, le gouvernement bon c'est-à-dire par le biais de l'OFNAC lui une institution boo xamante ne que aussi qui dépend du gouvernement veut s'auto saisir par rapport à ce, ce, fait-là, ou bien cet acte-là, euh, lui poser des débat juste aussi pour apporter des, des, des, réponses hein, par rapport à que pratique Est-ce aujourd'hui le rôle de l'OFNAC, ou bien l'OFNAC aujourd'hui a le droit de, de, s'autosaisir euh, pour, pour, essayer quand même d'apporter ou bien de, voir la provenance de cet argent-là lew na wala lewul alors que y' a d'autres problèmes yi nga xamante ne que war na ko régler et loolu mooy thème bi tey jii internet yi euh, soxna Mbène euh, yow pratique bi nga xamante ne que joxe addiya ba som yi di par exemple euh, gis nañ fii ay taalibe yu dajale ay milliards joxe ko addiya ah voilà donc mu doon loo xamante ne que du lu bees lu tax nag deux cent soixante dix millions rek tax mu indi coow bu mel nii deux ma la rek man dama gën football ci la mais. Mhm. gis nga tige benn affaire dafa am. gis nga sénégalais moo gën a dëng sur terre. Mhm. ñun bu ñu lay nit. Mhm. yeneen pays yi boo ñu comparé ak yeneen pays ñooñu ñooñu gën a ñeme tour de mais gis nga Sénégal bu la ñuy kooree la triant mooy léegi. bi lekk lay a bëgg na koy jubal. ñoom bi ñu nee bëri ñu ñëw ci àddina bi am nga of naa ne loolu la bëgg a lijjanti mais. bu ñu fàtte ne Sénégal réew boo xamante ni dafa am ay confréries la te ci ñoom am na ñu nga xamante ni bañ ñu àddiya donc pour man balaa muy ñëw di réclamer ni ñi waruñu joxe ni mbala la est-ce que moo waru woon dem ci sëriñ bi ñu toogaale toog waxtaan ci loolu parce que àddiya bi nga xamante ni yow yaa ngi bañ nit joxe ko te ki ñu koy jox da koy nangu pour man da nga war a toog ak ki koy nangu ngeen waxtaan ci ba pare bam d'accord ci nga say mm. parce que àddiya dañ koy su ma neexee jaay doroog mbala ma def leneen joxe ko parce que sëriñ bee koy na donc man bu dee conseil bu may jox wax na ak ñoom te sëriñ ba lañ war a def ñu toog waxtaan ci puisque ñoom ñooy encaissé addiyee mais taalibe bi amul lenn lu mu koy wax ok taalibe bi amul leneen lu mu koy wax euh, sànq léegi mel noonu l'émission bien le par exemple que bu nguur gi

muy kenn kilifa la da nga ko war a wormaal gis nga affaire bi mënuñ ko lijjanti neneen lu nii nekk ci presse bi di wax gis nga nit yi soo wootee démocratie sa dëkk da nga ko war a jëfe démocratie mooy lu ëpp mais nag gis nga kilifa ci dëkk da nga war a wormaal c'est normal c'est normal parce que ñoo ngi def affaire bu grave di jàll mm. parce que tey jii ñoo ngi laal organisé ñoo ngi laal bu nga fois. waaw foo ko laal mu gàtt nga doomu aadama warmaal ko warmaal kilifa dafa baax parce que ñoo def jeu benn jeu boo xam ne ça détruit beaucoup de choses day yàq lu bàyyi Cheikh Béthio lu mu mën a mel kilifa la kenn lu mu mën a mel kilifa dañ la war a warmaal xam ne politique bi foofu nu war a def ñoom ñu def ko mooy que lan saytu suñu alal fu mu war a dugg saytu suñu nekkin saytu suñu dund affaire bi foofu la corruption bu nekk ci dëkk bi ñu fexe fexe ba corruption boobu ñu lijjanti ko parce que corruption mooñu teel wax nga dëgg nga xam nga baax lu ma la am na fi ngay dem ci administration foo nga joxe dara

interpelle pas directement chef l'équipe kese ñun suñu débat bi bien vrai que sax foofu noonu la coow yi voilà mais c'est-à-dire euh, pratiquement boo xamante on est là quand même aussi pour euh, ah, quand même défendre respecter bi nga que aussi les réfugiés qui sont là c'est que ñoom aussi man gëw ma ne c'est des citoyens ordinaires ah. ah voilà donc ça à dire c'est des régulateurs euh, sociaux. ils sont là et bu dul woon ñoom sax amaana dëkk bi xam nga jot na fi euh, voilà dina doon gën a jaxasoo hein. voilà donc c'est pas des gens yu nga xamante ne aussi de leen war a considérer comme euh, voilà quoi. dëgguma mais ki dafa wax sànq wax bu am solo muy côté administration. Mm-hmm. foog naa sénégalais bu bu fekkee waa OFNAC ñu bëgg réagir mhm. ak adhéré bi métti na rek mooy mhm. li leen war dañ ko def mhm. maanaam fi ñu leen doon séntu dañ leen faa gis ndax adhéré la c'est-à-dire nit ki boo bu njëkkee li nga war a def am na foo xam boo ko eggee kenn kenn du la wax dara parce que dañ naan yaa ngi ci yoon mais imagine yow nga ñëw teg fi kuréel bi nga xam ne leneen da ngay saytu pour lépp jub administration bi ñuy wax administration moo gën a tax ñuy fii papier boo fi mën a lijjanti boo ko bu waree def si deux heures dina am ay une semaine. lu koy waral il faut nga génnee xaalis jox leen. mbala nga am ko nga xamante ni ku ñu xam la mu woote ca kaw ne leen defal la ñu defal la. xam nga dèjà foofu rek la problème bi njëkk a nekk. effectivement yaa ngi te am réew nan lay demee te administration bi baaxul. Hmm. ñu ne déet waaye nga war alal gi ñu moom ñun moomal ko suñu bopp ñu war ko sàmm ñi nga xamante ne ñoom la yàlla ko ñu nekk ci boppu réew. Hmm. parce que choisir ñu dañ leen koy nangul quoi. Hmm. ñooy jiite réew mi yàlla moo ko def si ñoom. ñoo kon ñoo war a doxal loolu. suñu alal lañ ci def li nga xamante ni loolu lañ soxla. mais au contraire ñoom li ñu sentir lañ ci def gaspiller lañuy def def lu leen neex.

ndax gis nga nit moom boo xasee ba li nga diggee woon defoo kooku loo ko dig da ngay wax lu la neex ci gan bi nga xam ne quand même mm-hmm. li leen def mm-hmm. ñu bokk si ñoom mënuñu leen di def mm-hmm. ndax ñoom xamante nañ ne ñoo fi nekk di sonn rek ñuy wax loo bi ñuy jëfloo mais ñoom xamante nañ bu baax opposition bi parce que arrangé wuñ ko c'est normal mu dugal leen muy Khalifa muy Karima ci yam ñu ko gën a pire ñu ngi si nguur gi te dara fekk leen ci ñu ngi koy def tout temps nëbbuñu ko ce qui est malheureux ce qui est

non gisuñu ci dara deful benn jéego ba nga xam ne jublu suñu bopp deful lan nga xam lan loo xamante ne nii arrangé na population bi mm-hmm. amul benn rapport bu am maanaam ba nga xamante ne nii mm-hmm. teg na ko si table kontaan kon OFNAC boobu noonu ah c'est rien budget dañu jël jël budget bu toll na ay millions jox ko te te amul benn budget boo xam ne def na ko Sénégal yi tàcc mais soo tegee dara da ngay teg pour que nag Sénégal yi tàcc xam ne lii kat def nañ ko def nañ ko parce que lan suñu arrangement la def nañ ko parce que ñoo ngi seeti suñu alal mais amul lenn la nga xam ne af nag def na ko mu teg ko suñu loxo ñu tàcc gisuguma ko man franchement gisuguma man daal af nag daal saa yi bàyyi Cour des comptes mu gérer yéen sa moom bi quoi bàyyi Cour des comptes mu gérer kii mais amul parce que en fait ñoom aussi dañ leen teg foofu loolu dañ leen teg man institution yi compris c'est-à-dire ñeneen ñi a ñi nga aussi fi aussi pour euh, pour quand même euh, contrôler euh, la gestion des deniers publics alors que lii dafa pas si demande sociale. mais la justice même même même temps mu ko loolu loolu loolu man moom loolu moom dama lu mel ni cour des comptes boo ko bàyyi mu liggéey ba ko affaire petite production. si on épingle boo xamante tey jii nii ci sama sama nguur la bokk. tey jii nii dossier bu dem fenn bu ñu jëm fenn. xamal la la war a bàyyi. ñu bàyyi justice indépendant total. total. voilà benn ingérence politicien bu ci bu ci bokk. ok ok donc léegi euh, bëgguma aussi ñu jaxase parce que OFNAC hmm. moom bu la épinglé. Hmm.

ok même boobu nag su defee liggéeyam. Mm-hmm. justice la may mais mais na topp justice. na taxaw ko Sénégalais yëpp na man lii def naa ko. jox naa ko justice mais justice def ci mu leeral ñu ñu xam. ok te bëgguma la sax xam nga kii dafa wax sànq lu am solo. Mm-hmm. day def rapport. Mm-hmm. justice def liggéeyam. justice maanaam kon li ñu def si rapport bi rek loolu la war a toog ko xam nga. dans les normes. dans les normes pour ci yoon. mais bu fekkee ne li ñu def si rapport bi nekkul yoon. li bi. la commencé nag. waaw mais ah, c'est justice.

sénégalais jub mais dafa bëgg kuy jubal mm-hmm. ñun loolu la ñuy xaar ci nguur bi fi mun di ñëw ñun fi nekk ak keneen ku fi yàlla di wàllu te mm-hmm. ku ñu jubalal suñu réew mi xam nañ li ñu nekkee du yóbbu donc loolu nag pour mu am mm-hmm. waruñu fee mën a teg ko nga xamante ni premièrement il faut tegu yaa ma neex lay loolu dama lay choisir parce que da nga bokk ci ma comme kooku li nga li nga bëgg mu def loolu la lay defal mais du def la nga xamante ni day jëmale askan ci kanam donc nguur bi fi mun di toog tamit di ko tànnee noonu saldu nii lay def dañoo bëgg yoon réew mi aw ci yoon lépp leer xoolal bu koy tànn nañ ko tànnee si anam bu leer naa ngi loolu laa ci wax. merci beaucoup lu may tëjee. lu may tëjee mooy que nañ yërëm. parce que fi nañ yërëm parce que dañu yërëm population bi. Hmm. nañ xam ne. Hmm. ñun ñoo doon fa teg te liggéeyu suñu borom. Hmm. mais benn affaire am na tijaan. su indépendant mu def dara. nañ bàyyi justice bi def liggéeyam. comme benn bu ko

électorat de cela ne me pas ñu de côté mais liggéeyal ñu Vous avez fait faute c'est à la population de pardonner Vous leur pardonnez aussi mais moo la war sanctionner en tout cas décision de si de mais il ne faut pas instrumentaliser quand même nos institutions Nous rek di nous également si euh, numéro de taxaw seetlu bini, donc euh, ça a été un plaisir quand même de faire face à vous on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. jóg jóg jóg jóg taxaw takku tembe taxaw seetlu